Assalamualaikum warahmatullah. ku ñoo xamni kenn du leen présenté bo tuddé seen tour rek ñepp xam seen jëf ndax wax ak jëf ñom dañoo jëf waxuñu loolu moy ci kanam seen jëf ñuko fa tabarakallah kep kuy bëgg lu rafet kep kuy bëgg lu jëm kanam boko xolé dang ko rafetlu dang ci and dang ci japp kon nak ni nga xam non lañ doone partenaire daayira Moukhaddamatoul Khidma tax ñu ñëwaat tay ji and ak ñom ci bis bi ñu leen talal loxo di leen laaji xalaat yu jëm ci nu ñu gisee daayira bi ci soññee wala jaajee wala lu mën di doon. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di ci turu Touba ci kanam gépp ki nga xam ne sëñ Abibu Mbakke mu sëñ Fallu moo ko jiite euh, ma ànd ak délégation bu am solo boo xam ne euh, ñëw teew ni ci sama pegg sëñ Saliou Diakhaté moom El Hadj Mbacke mi nga xam ne mooy jàngalekat bu mag bi ñuy jàngal ñun ñëpp. sëñ Abdou sëriñ Mourtada Mbacke moom sëriñ eh, Abdoul Akram sëñ Khadim Diouf di administrateur Touba ci kanam sëñ Bara Mbacke di mani eh, jiite massification maanaam ki yaatal Touba ci kanam ci gox yeeg ci quartier yi fépp. Eh, defe naa ne am na kenn ku ñu wax sëñ Mayib Ndiaye nekk membre ci. comité comité scientifique et culturel ak man mii di wax ak yéen xam naa tay na ma présenté sama bopp dama naan man a rek yem ci <laughs> kon ñoo ñëwoon teewaayal teewal Touba ci këram gépp ci invitation bu am solo bi nga xam ne euh, ñun ñi ñu invité ak ñi nga xam ne ñooñu ñu invité benn lañ ñooy ñoom ñooy ñun ci wàll yëpp ci ci batin xaa dañoo baax te bëgg lu rafet rek ak ak jotal moo tax ñu def ko. Euh, di wane nag Touba ci kanam ñoom comme ni ngeen ko xamee tur wi nag ni mu demee loolu noonu la objectif yi demee bëgg a jëmale dëkk bi rek ci kanam si domaine yëpp nag kon suñu yéene bu matee te yàlla mat ak jàmm kuréel bu nekk ci Touba boo ne di liggéey sëñ bi dañ la fekk fa nga nekk defal la la nga bëgg lépp ci ay mooy loolu mooy suñu yéene te tàmbale nañ ko kon di ñaan sakku seen ñaan ak seenu jàppale ak jàppale mbooleem rek taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf Serigne Fallou kaddu yi nuru na mbooloo mi nga yor mooy mbooloom jëf ti bañ a wax kaddu li muy gàtt gan tënku na am na solo ñu ngi ñaan ci yàlla suñu borom mi sàmm boole ñu sàmm taxawuñu ba li ngeen yéene ci dëkk bi ci mu doon yéene joo xam ne yéene yu mboolem taalibe yi Serigne Touba yëpp la ñu jëf ko ñun ñëpp te ànd ko ñun. yàgg fa Cheikh Mouhamadou Mountakha ak kilifa yi nga xam ne ñi ngi dox jëmee bokk ci liy joxe doxe Touba ca kanam ñëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd wi ñu nekk fii ci jumaay Tuubaa ci daayira Muxaddamatul Xidma mi nga xam ne mi ngi fi taxaw diiru weeru koor wi ay taxawaay yoo xam ne dañ ciy dundal ruu ak du ci dundal yaram ci mbooloo yi nga xam ne dañoo baaxoo ànd ak ñoom liggéey bi te ñu bokk ci dëkk bi di ci liggéey liggéey bu ràññu ñu bokk ci waa wilaaya ku ne wilaaya xam nga diggante wilaaya ak daayira Muxaddamatul ma waaye wilaaya ak yoonu murit bis ni tey nag ñoom ñu ñëwoon fi tey ji ànd nañu ñun fi ñu fa yéenee ànd ak ñoom ngir. jokk ay kaddu soñi ak kaddu nan lañu gissa ndog yi ngir luñ ci mëna a dolliku ko ñu mën ci dolliku ko mu doon soñi ñun ñi ngi leen di nuyu di nuyu mbolem kilifa yi ngeen fa bayyi ci ñu yàgg jëflante ñom jëflante bu rafet daanaka yéen buñ tànnee buñ ñun iwité won wilaya mëna ñu tànnaat suñu biir yabalat leen yabalat ci jotaay bi ngir yag and ba nga bëgg a te lepp rafet na te yalla ak sëriñ bi rek tax kon ñi ngi leen di ndokkel bu baax ci wër wi di len jajeufal bu baax di len soñni ci yittewoo gi ngeen yittewoo mbir daayira xadim Khidma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki daayira Muxaddamatul Xidma seen mbokk seen bokki taalib yi ngeen bokkal pas-pas di daayiratu wilaaya bu ittihaadu atbaaxil xaddiim li taawuni wa tamasuku bi dinil xawiim fii ci Touba te Serigne Cheikh Diop Kellel jiite comité directeur bi ñoo ñëw fi tey fii ci seen kanam ànd ak bis bu tedd ci weeru màgg ci lu sell muy waxtaanu weeru koor waaye ndogu yee ci aju la ca aju di nuyu baax mu daayira Muxaddamatul Xidma di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëñ Abdou Lahad Massa nga xam ne kenn ku ne xam na ko mu yor wàllu relation extérieure bi waaye mu tegal ñu nuyoo bi ci loxol sëñ Abdou Lahad Bousso mu talib mu tegal ñuko ko loxol sëñ Afiya mi nga xamne mo jité liggéey bi way di nuyu nag mboolem waa daayira khadimatul Khidma bi yépp di len ziaré ni nga ko waxee buñ nee nuyu wa waa daayira Khidma moy nuy wa wilaya ndax ben lan du ñaar ndax dañoo bokk ben pas-pas bokk ben bëgg-bëgg bokk ben yéné té lepp yalla rek lal ko waaye seigne Abdou li ngeen def de lu mourid yépp waron na xam ba ko ak yeen jappalé len ci ndax. waxtaanu weeru koor nit julli takkusaan ba ngoon jot mu ñu ci waxtaani diine tey bari ñu jóg toog ci jataay bi dégg ci sëñ Abdourahmane kàddu yoo xam ne bu dutoon jataay bi duñ ko dégg wala ci jataay bu mel nii lay doon loolu doy na sëkk jaamu yàlla ndax toog de waxtaanee lu baax rek baax na waxuma la ci weeru tedd wi waxuma la ak barab bu tedd bii waaye lii ngeen def dara gënu ko yéemeeti te ñu yàgg koo ànd ak yéen muy nit woor ba ngoon te xalaat fan la war a naane wala fan la war a mose benn tàndarma ngeen lalal ko lal gu jekk jox ko lépp mu tiim ko sëñ Abdou Lahad loolu liggéeyal yàlla féetewu ko kaw kon yàlla na ngeen ci daje ngërëmal yàlla weer nag day weer woo xam ne lépp lu ci waay def yàlla nga ciy wër yàlla mu ngi ciy wër yàlla nañ ci daje moom yàlla na suñu borom barkeel liggéey bi yàlla na suñu borom euh, gërëm ñi ci nekk liñ ciy dox ngir di ci wut yàlla ak yonent bi Serigne Touba yàlla nañ koy wut suñ borom mi nga xam ne mooy sàmm te lu mu sàmm mu sàmm yàlla nañ sàmm di leen dollee war wan këll rek wilaaya ak mu xaatimatul xidma waaye di ko dollee dëgëral xam ne daal lépp lu ngeen dégg ci luy booleeg luy benn lay ma ak wilaaya wilaaya ko wax waaye lépp lu ngeen gis ci lu koy safaanale du waxi wilaaya du jëfukaay wilaaya wilaaya daal pas-pasam ak yéeneem mooy daayira buy liggéeyal yàlla ci Touba mbake gii mu ànd cee moom ndax Serigne Cheikh Mbakke Gaynde Fatma mi ko soson loolu rek ko taxoon mu sos ko daayira buy liggéeyal yàlla moo tax daanaka barab yu ñu gis yaakaar ne togg ak yekk rek ngir lan loolu fekk na liggéeyal yàlla rek lañ cey wër waaye wilaaya xitma moom moom li ñuy wax rek mburoog soow la boole naan wala boole tuur kon yàlla na yàlla boole dimbale euh, démb lañu sëñ Cheikh Diop woo wax ñu ko jox ñu ndigal ñu ànd ak bureau exécutif bi ñëpp ñu ànd ñoom ñëw am na ci ñoo xam dañuy jàppan dañuy naan julli rek dem moo tax waaye ñii fi teew di sëñ Abdourahmane Dieng mi nga xam ne moo yor commission culturelle bi Serigne Bada Diop mi moo yor communication bi Serigne Dame Loum mi moo yore relation extérieure Serigne Cheikh Mbacke sar mi moo yore finance Serigne Cheikh Dieng mi administratif ak serigne Mbacke mi social ñoñu dañu japp ne dañuy naan rek dem waye bi executive ñepp la ma Cheikh na ñu and ak ñom ñew waye ñoom it jàpp ni kenn ku nek fa nga sa deg deg tollu serigne Cheikh mi dama ko muju obligé moog serigne bat ñu wàññi ko wat xamne dal li ngeen bëgg ci ñun bu ngeen won dañuy bokk fanaan ak yeen dañuy ànd fanaan ak yeen ndax ñun noog yeen amul lu ñuy xëccio amul lu ñuy jëñante yow it ñu ngi lay ñaanal ndax gis nañ sa taxaway gis nañ seenu bëgg yalla ak serigne bi rek a leen ñor kon yalla ngeen ci daje ngërëmal serigne bi ak bëgguk serigne bi ñu sant ñepp di gëreem ñepp salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëriñ Ibrahima kàddu yi jot na ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla sunu boroom mi sàmm yàlla ñu boole sàmm ba li ñu yéenee liggéey ci toolu sëriñ tubaab bi ñu def ko te yàlla mu ñu ci ndog yi ak pakk-pakk yi si suturaal ñu ci liggéey bi lu mu yaatu yaatu lu mu rëy rëy rek yàlla nañ ci gis sëriñ bi te bañ ci suñu bopp ndax sëriñ bi moom loo teg ci loxoom bàyyi ko ci moom xalaat ko ca jiital ko ca ndam rek ca juddoo kon nag suñu lépp ak suñu yëngutoog suñuy daal ak suñuy xalaat ak suñuy pexe lépp yàlla na sëriñ bi jiitu digg ci mujj ca ci bàkk sal xadim wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu